guy googu dégg nga la yaa ngi wax ay mbër waxuma dara waaw nga guy gi dafay am benn waay muy nekkal ku nuy wax kocob xaw ma internet kocob xaw ma na ci internet bi monsieur di wër naan sama combat baa mu ngi am na promoteur ko bëgg ak nangam bi mm-hmm. yaa ngi dégg de mm-hmm. ma mu jox ma numéro ma woo ko téléphone wax ka li may wax ci la siy gémmiñam ba léegi ni moom moom mais guy gi moom moo ko doon yebal muy def yooyu moom guy bi ko yebal nag maa ngi nii ne sama waas moom guy gi si boppam barki sëy naa limaam guy gi ñu lekk sama waas billaahi wallaahi tallaahi te man manumaa bañ ñi ma man bëriwul ak ñoom gis nga fi mu jógee dégg lu ma la wax fan la jógee boo ñaa moo ko daan tafaatin daan ka maa bale daan ka mu ñëw daan si të waaw waaw champion la daan de champion la daan waaw yaa ngi dégg mais nag dina coow waas ñu bëri daa ni nee na nee nekk nii li muy yëg comme ni ngay wax rek li muy yëg nee musu ko yëg mu ngi laaj mu ngi laaj ay Modou Lo di laaj euh, Eumeu Sène di laaj keneen ak keneen ak moom nee na Eumeu la soxla moom mm. ñu bëgg bëggu guy gi moo ko dàq lan guy geeg bàyyi ma ñoon rek. <laughs> am na wallaahi taala lan moo ko daax ci arène nationale bi. lan moo ko daax laa ilaaha illallah mais est am na promoteur yu la ko proposé. dégg ma la wax xam nga tey ni nga waxatee rek xam nga su ma waxee pare rek. Euh, démb démb rek billaahi wallaahi taala am na ku ci wax ak man. am na ku ci wax ak yow ma ne ko moom fexeel moom na d'accord rek. ma ne ko guy na d'accord pour. ba dañu yow li ñu la fay nga bëri moom. dégg nga li ma la wax na jubóog moom man ma daagee sax mais guy gi lan lay ragal si yow lan lay. am lu muy tiit si yow lu muy mayen ci yow. nga guy gi. champion la comme ñëpp. champion la moom. mais dama bëgg lu mu bëgg wax ba am yoon muy jàkkaarloog man di ma ko wax. mais war la yónni ay booyam ñu ne ma koy sànni quoi loolu rafetul hmm. ñu ñëpp ay sportif lañ quoi wax ju ñaaw kooku wax da la koy delloo mais xëy na lay cukk delloo rek ko ko yëngalee rek mooy hmm. ne ci internet bi di wax baa kan moo ñemee loolu ci àdduna mais que bëgg na bës bëgg na tur ba tax mu taxaw baa ma joon nii baa ma joon naa affaire yooyu quoi hmm. te man man musuma ko gis jëmmaam kacob ci internet bi laa koy gis mu def affaire comédie gars yi retaan affaire ñaawalaat yooyu quoi <laughs> yaa ngi dégg mais guy gi ko yoon teg bi yaa ngi dégg lee baama yób ma kalaajee am na jour ma sanaan guy gi am ku ah, na koroon ka moom guy gi muy ah. fen di wax lu hmm. hmm, hmm. na ñoom ñu bëri est-ce que dox sa maay ba combat bi lu lekkee wax man ragaluma kenn ci làmb ji amul mbëru may ragal amu mais pare nga mindeef mindeef doomu aadama manuma laa ragal mais promoteur yi nañ ñëw dama ragal yàlla ba pare boo xam ne ñëpp laa ñeme ñëpp dëgg la loolu moom am na moom amoon looy ragal moo tax ma ne loolu loolu moo tax ñàkk suuraale ñàkk bàyyi xel leen mooy tax ngay daanu mais du sa ñàkk fayda du sa na xam nga tey jii maa hmm. lay wax sànq hmm. ne la sama combat Gambie bi mu ngi yàqu ci lan hmm. ñaan ay wee ay mais yàlla ma dimbale ba yóbbu may wee man su ma yóbboon ay damay taxaw ñu daggaleen ba daggaale samay baaraam garaawul loolu ay mbir la mm, yàlla la dimbale mais action la yëpp mm, mm. mais àdduna li si kanam rawuli ba daal li ma waxoon li sëñ wax rek jafe-jafe li si kanam lépp jàpp ay xewal lay doon ci kattan yàlla su yàlla may fan li nga wax noonu ci kanam la jëm dem ci titre roi des arènes bi wala boog fi nga tolloon nga ñëw tollaat fa. ma joon tëggul làmb. Hmm. man damay entraîné rek di bëre. Hmm. promoteur ñoo xool combat hmm. ngi dégg mais sañ naa wax nag. diw soxna la ma ne la diw soxla naa ko. dëgg ma ne la ko ñeme naa loolu sañ naa wax loolu. mais yor seen xaaj ñooy xool combat bu leen neex mi tëgg ko. yaa ngi dégg man nag làmb mooy suma métier. képp ku ma jox damay bëre ak moom. waaw. ok kon gars yi seen question bëri na moom laa doon